merci beaucoup topp ñu daal di ñëw suñu premier sujet d'actualité rek ñu daal di ko amal ki nga xam moo di Sonko ginnaaw miti bi nga xam amaloon na ko fële ca Géejawaay mu takku nag am mbooloo bu takku tubaar fakkaat la naa la xale wuy ci ko wuy si ko waaye yëkkati na fa ay kàddu am solo waaye ku moom xel bi da nga bàyyi buum kii di Tahirou Sarr moom tam daal di génn ginnaaw kàddu yi nga xam ne Sonko yëkkati woon na ko fa daal di ko tontu nañ dem déglu nga xam ne moom la ko Tahirou tontu ñëwaat dal cee gën a mën a xuus. Ousmane Sonko sama mag la te ba tey sama mag la mais dafa am lu ma gëm mag su fenalee rak rak war na mën a toog expliquer surtout su ko defee en public te daf maa fenal loo xam ne dinaa ko détaillé benn par benn bu si njëkk mooy doxalinam ci ñàkk nekk homme d'état mooy defante bu bëri te defante bu bëri baaxul te li ko Macky Sall njëkk xañ mooy passeport passeport boobu ñu ko xañ da koo teel a xañ moo tax tukkiwul xamul nu àdduna di doxee wallahi waxuma ko pour nag ñàkk respect dara mais Ousmane Sonko xamul fu àdduna toll xamul nu àdduna di doxee benn Macky da koo tënk ci maanaam defante ba nga xam ne dafa dem ba jël pouvoir bi di kon di defante mu dem tamit ci ñàkk passeport mu juróo ko nam ñàkk moo tax soo leen xoolee Sénégal mi ngi te relation internationale dafa baax ci ñiy jiite réew pour ñu jàng bien sûr li ma ci gën a wax li ma ci gën a mën wax mooy euh, gis nga sooy jiite nga dem ba yàlla may la kilifteef yàlla suturaat la ci biir may la taxawaay dafa am nooy doxale li ngay doxalee bu njëkk mooy li la yàlla may yëpp da nga koy jël sante ko yàlla ba pare après maanaam ngay doxalee dëgg ci nit ñi ak yàlla man ba may politique ba léegi musuma toog télé wax loo xam damay ñibbi sama kër ma toogee ci la mu ngi noonu mbaa mi dégg nga kàddu yi nga xam ne Tahirou wax na ko mu mel ni rek daf nay dafay wax sonk que ne lépp lu mu wax rek euh, du dëgg. moom moo dul wax katu dëgg bi. moom mooy kat bu mag bi moom mooy narkat bu mag bi moom mooy mag mu yabaate mag mu indiscipliné bi lan ngay taxaw ci digg penc di wax diw sama mag la ba pare nga def maa fat yow sa sa mag sañ nga koo wax na ko tu ma nga baal ma wala kenn ci man mii man ma jël exemple sama bopp je n'ose même pas ma wax awa Senghor bi nga xam ne moo nàmp joxu ma nàmp mu naam mu wax lu dëgg ma taxaw naan ko Senghor maari li nga wax lu dëgg yàlla bu ma ko def man Senghor ñu ngi laa toog du ma benn respect sama mag xamul tax chérif yi raw ñu ndax sëy naa ci ñoom macha allah 15 ans de mariage mag ak rakk sax suñu toogee waxuma la nga saaga wala nga jaay insolent wala insolente sax mais say tànk doo ko tàllal et tu n'oses même nga toog ak bopp neen comprendre nga gis nga nit éducation de base da nga koy am nit da ngay am éducation de base boo amee éducation de base rek ci kàttanu yàlla doo gàgg ci penc bañ lay gàggante ndax moom bi mag mu yaradi ko la moom moo fi taxaw sang Ousmane Sonko moom set ak président Diomaye son excellence yàlla leen bañ set di leen plaider ci plateau yi H24 Diomaye président ñëw nga ànd ak moom certes nga toog faloo man dama doon jàpp sax bi ñu falee gouvernement bees da nga ciy bokk mais peut-être yow sa vrai visage da nga ko nëbboon président Ousmane Sonko moo tax ñu sepp la ni weñ nee naa la soow bu duggee ci weñ amaana xaru taxu koo jóg neex neex gaa ko jàpp ba mu dee te yow looloo la dal sa vrai visage dañ koy doog a xam da nga foo da nga lëndëm yaa xaju balcon boobu yéen a yem. Oh. c'est parti ah yaa xaju balcon boobu yéen a yem nit munoo koo bëgg ba yàgg nga xëy ne da koo bañ nit munoo koo bañ ba yàgg nga xëy da nga koo bëgg Ousmane Sonko ku takk ci moom ku bokk ci moom mbaa nga lëndëm mbaa nga louche mbaa nga wax ko dëgg mbaa nga nekk hypocrite ci aaye boobu mu yëkkati ci diggu pénc bi nga nekk naafeq nekk hypocrite barke alxuraan doo ko bëgg te lu takk ci moom te dëgg woo da ngay ko ni weñ te yàllaa la yëkkati boppam ndax xale bi missionnaire la tubaarkàlla macha allah bu ne der ñëpp topp ko don de Dieu la nañ ko ci passé sosol nañ ko falestiste ak faramason du n'importe quoi lu wax ñaawee rek teg nañ ko ci deru gor te bañ koy yàq ba teñ yàlla di ko yëkkati mu wàcce boppam wàcce boppam nekk weesul président Ousmane Sonko nekk premier ministre am priorité am accès ci état ak i gouvernement am tey waroon a def nu mu ko neexee di njaabaa jolle mu wàcce boppam woo ministre te l'intérieur en tant que président bi parti wootewul en tant que premier ministre et pourtant il peut le faire parce que am na sañ-sañ yàlla may na ko doole ji kon kii na tàllal yàqal na boppam na këpp na yalwaanam mastataa gi mu jotoon am askas néew kenn ci ñu ko waroon a votel sax man bu ma dee patriote wala bu ma dee patriote kii da xam ne dootul gisati bunt na tàllal xam ne moom fay na politiquement parce que gis nga nit sa waxu démb ak sa waxu ren bu ñu ko méngalee bu doonul benn li sëñ Abdoulaye Mbacke daan wax yal nañu ko yàlla fayal ne bu ñu diw jaay na ngor mu ne koo am parce que góor du soppeeku góor maam El Hadji Malick dee talaam daan na ko wax góor du soppeeku gor du caalit góor du mer ak wax la lam wa lam la ko saf góor du wax ne yaa baax ba yaag nga xëy na yaa bon man de Senghor mënuma ko tagg la ba mu la neex ma xëy xas la barke alxuraanu karim du ma ko def waaye nag su ma la jàppee jàpp naa la su ma la bayee banaan sama seul défaut loolu la te moom mii ñàkk na Ousmane Sonko ñàkkul tax ci moom ñàkk na kulli sénégalais boo xam ne amoon nga tuuti cofeel ak tuuti importance si moom maa ngi ko doon wax sànq ci man de yaa maa ngi ko doon wax ne ko lenn laa ànd ak moom laisser aller bi ci Sénégal dafa bari xaj balcon yi ni ci biir Sénégal yi dafa bëri ndax accès bi ñi am Sénégal accès am na ñu nga xamante ne ñun bu ñu génnee biti réew amuñu ko fa très sincèrement benn Sénégalais mosul dem aéroport ba te yoroo say filiation yu leer yor sa passeport wala sa visa mayuñ la ko wala nangam sàngam nga mun a dugg biir France ou Amérique Amérique nga ne président bi lu mu wax képp kuy doomi aadama ko fu mu ti ka nekk te amoo koy da ngay génn il a le droit dëkk dañ koy sang raxas ko mu set kon Sénégal jot na ñu raxas ko ba mu set ku fi bokk te amoo këyit wala war a fee bokk parce que malfaiteur yaa ngi ci dëkk bi dañoo war a segg seggaat ndax sant dëkkul fenn nit a ngi sant nangam sant nangam fekk boo xoolee rees euh, euh, nuñ koy waxee racine ba ay maamam fii lañ nekk cosaan lañ bokk wala bool wala nangam wala sangam kon munoo xëy xëy tëb rek ne yow ba nga sant da ngay génn dëkk bi wala saw nga sant da ngay génn dëkk bi loolu kenn waxu ko kenn kenn digalu ko kenn kenn conseil ko kenn ndax Sénégal gi mooy suñu gaal kenn du ko këpp li maam Abdou Aziz Dabakh daan wax ne boo nekk ci gaal gi yàlla sa ëmb bi mucc ñaanal gaal gi mucc ndax bu gaal gi muccee sa ëmb mucc kon nag moom li ah, mu tontoo man conseil moo ko mbaa nga xam ne amul staff bu baax mbaa conseil bu baaxul à la dernière minute trois jours ou deux jours avant fay élection di jot nga bëgg a génn di tontu wante ah vraiment nag moom xas na xasul na boppam yàqal na boppam te Ousmane Sonko xam ne kan mooy Tahirou Sarr xam nañ vrai visage am man nag rus naa santam bi ndax Serigne Touba danaan wax nee nag ku am jëkkër ju sant Sarr wala jabar wala nga xaritoog moom dalay naw kon nag moom saaram bi tubaarkaala xam naa saaru gélém bi la rek. d'accord waaw. Euh, ma jigéen ndax yow bokk nga ci ñi nga xam ne sorti Tahirou saar bii bett na leen parce que ñu bëri dañu la wax ne kii de kàddu yi mu kat jëmale ko ci Ousmane Sonko bett nañu bari bëri. soo gisee lu tax sax ma ma ma ma ma ànd ak Ousmane Sonko parfois mu yëkkati yenn aay yi genre yu mel nii moo ko waral. parce que bu ñu nekkee ci réew il faut parfois nit ñi nga leen di fàttali yàlla parce que am na ñoo xam ne dañ koy fàtte. loolu mat a bàyyi xel la moo tax man man man man personnellement dama koy rafetlu xam nga Tahirou Sarr mi démb bu muy def conférence de presse bi dafa ne moom ba léegi mu ngi ci coalition Sonko Diomaye mu ci ay kàddu ne man Ousmane ko ci veille campagne bi dafa ma woo expliqué expliqué mu ne ko dafa bëggoon mu ñëw ci yow dafa bëggoon mu ñëw ci moom expliqué na wax wax wax wax wax mais am na yoo xam ne même su la ko suñu sa nawle defee soo déggee ni wax na loo xamante ne ni moom ba muy wax wax na ba jeexal te neewul tayul neewul saar dafa wax rek mbirum nationalisme ñoom ñu nekk ay patriote te daanaka affaire yi boo seetee sax soriwantoo wuñu léegi yow soo gisee ni waa ji kat débordé na nga ne sama mag la damay yëkkati sama téléphone ma woo la ma la ah man kat doxalin mi nga am démb su ma sañoon doo ko def toog tamit di wax ne li bokkul woon ci programme am bu ci bokkul woon te nga bokk ci coalition bi mënoon nga ñëw joxe sa contribution puisque yow yaa ngi ci biir coalition bi nga ne man kat nii ak nii ak nii kon donc yow bokk sa bokk ci coalition bi ban njariñ la am mooy bokk ci coalition boo xamante ne ni après da ngay def affaire hypocrisie mooy li muy wax tout à rek naa fekk yi day ñëwaat parce que du ma bokk ci coalition bu nga xamante ne nii ñun ñëpp dañu ne dañuy booloo doon benn ku ci waaye bu jëlee fële contribution am ñëw indi ko ñu boole ko ci projet bi léegi pourquoi yow nga nekk ci biir pro ci biir parti bu nga xamante ne nii wala coalition bu nga xamante ne nii nee nga génn goo ci di am say idée bopp yoo xamante ne nii iñaane nga ko dugal ci biir ci biir ci biir pro ci biir projet bi nga ne da ngay demal sa bopp avant loolu nit ki woo la ne la man kat su ma sañoon nga ñëw yow yaa ko nettali ñun déggeewuñ ko feneen ci gémmiñam lañ ko déggee mu ni du ma dem parce que lan Ousmane Sonko dafa soxor dafa bëgg chaque jour di jiitu ñëpp dafay bëgg nit ñi di topp si ginnaawam waa xam loolu dafay am day day ba tey ak sujet bi oustaz doon waxtaanee léegi rek man aw aw du ma ko comparé da gis nga buñ la piégé benn yoon doo nangu ku la piégé ñaari yoon gis nga man keroog bu su man Ousmane ko waxee lii rek tey suba maa ngi koy wax si jomee tax à soy bu ma ni euh, waa ji de dana am lu mu ñàkk ndax peut-être sa xeex boo ko limité yam kase ne Euh, ñi fi nekk dañ fi war a jugee même bu ñu leen di defal ay carte de séjour ak yi ni mel ñu jéem a fexe ba ku nekk ci biir réew mi nga am nu ngay doxee ak nooy waxe combat am waru woon yem foofu parce que tey jii nii bu fekkoon loolu rek la am ci idée daanaka idéem jeex na ndax waa ji ja jaxase na carte yëpp n'est-ce pas moo tax gis nga parfois dañuy waxante dëgg bu buñ di naxante gis nga naxante amalu la benn njariñ deuxième piège bi mooy tontu bi mu tontu. Mhm. yaa ngi koy wax tout sañuloo togg ak sa mag nga ne ko maa da ngay fen loolu ci naa fekk la bokk bu nee diw sama mag la maa ngi ci biir coalition bi su la defee lu la naqari doo ko woo mais da nga tontu publiquement ba mu tontoo ba pare rek li lay ne gis nga nit ñi dañoo faux wax ma sax question de faux patriote yi ni ñu mel ci jëmmu Ousmane ci jëmmi Ousmane Sonko ji daar daar boo duggee ci rose yi yaa ngi gis képp koo xamante ne nii amoon nga sympathie ci moom rek saaga ba nga ko saaga rek tax na nga jéppi ko man keroog vendredi passé wër dem naa parcelle euh, rond point cas bi di def euh, reportage mm-hmm. gaa yëpp dañu ànd ci euh, tayiru combat bi muy mëne mm-hmm. koo wax mu ne man patriote la mm-hmm. mais dama dama ànd ci li muy wax parce que ni nangam gars yi dañu sonal étranger yi ñu ngi nekk ci mbedd yi di fi def du n'importe quoi li muy mënee bis bu demee ci kanam dina baax mais tey jii nii boo taxawee parce que nit ki dafa génn ne la yow kat ba léegi waxu contraire wu ko ànd maak yow mais nee na loolu nekkul lu ñuy bañ daf daf koy gàgganti genre nañ ko defee nii waxee ko nii parce que idée boo joxee rek man tey su ma génnee sama idée yow am nga si xalaat ne ma mange ah est-ce que soo ko defee woon nii du baax oustaz ne ma est point bi boo ko jindi woon du baax yow nga ne ma est-ce que duñ ci yokk nangam est-ce que est-ce waa ji ñëw wax la loolu boo mënul genre nga woo ko téléphone nga toog nga jàpp sa ñàmbur wax day rafet tudd sa tur nga ne yow sa mag la daf la woo ku yëkkati sa téléphone woo la kay kooku ku la bëgg la bu ko bëggul woon du ko woo moo tax man de tey laa gën a tey laa gën a conseillé Ousmane Sonko xaw ma dégg na maam dégguma man l'essentiel man samay sama li ma war a wax dinaa ko wax fu mu demati di politique na fa tudd aaya alxuraan parce que Sénégal loolu rek moom moo leen di dimbali tant que tant que yaa ngi toog nag tant yaa ngi toog nag di wax di wax di wax di wax politique di di di di campagne di déglu ma rek di camp waaw Modou di campagne te ñi ngay waxal daanaka majorité bi yëpp ay ay doomu jullit lañu. Ah, dégg ma dégg waa waaw d'accord yokkal ma ci loolu ngir yàlla ndax lay ko xaaral balaa may fàtte tant que yaa ngi yaa ngi yaa ngi jàkkaarloog ay doomu jullit ñeneen ñi sax duñu ay jullit mais parfois li ñuy li ñuy wax dañ ciy ànd mais baax na nga leen di gàgganti waaw parce que yii a tax mu woon noonu. oustaz ndax Tahirou am na gëm-gëm wala. ndax li mu doon lii ci Sonko sax gëm gëm-gëm nga boobu mu ngi woon ci moom tey mu mel ni dafa trahir ñu bëri mu mel ni tey dafa wor ñu bëri. bu ñu demee ba phrase bi nga xam ne Sonko utilisé na ko mu koy moo koy déranger. Hmm. mooy lim naan nous ne sommes pas des nationalistes nous sommes des patriotes. Hmm. peut-être phrase boobu moo ko xaw a métti ba tey tax mu génn dal ci kaw Sonko alors que Sonko wax na te tuddul sax turam. Hmm. Ah, waaw xam nga euh, euh, mës nañu werante maag Modou du werante sax waxtaan la rek débat la comme ni Euh, moo koy wax naan ko euh, Ablaye Wade kenn dax ko politique moom mu ni ma Sonko Souleymane kenn dax ko politique euh, bu dëgg dee dëgg opposition bi xam nga lu ma leen wax Moodu mm-hmm. nañuy def très attention ci communication wu Sonko bu ñu bëggee politique laa wax de bu dee bëgg nañoo politique actuellement nii nañu bàyyi xel ni am na staff bu dëgër am na staff buy waxtaan ak moom ñaara am mu communiquer noo xam ne baaxul staff bi yëpp daanu moom ko mu communiqué nu baax staff bi yëpp xam ni ñi population bi xam ni kii il lii mënul ñàkk ci moom xam nga Moodu taayiru taataanul waxu mag taayiru taataanul waxi mag maanaam waxul ak mag xam nga lu tax rek juum waaw xam juum bi Moodu Ousmane sama mag la waaye day ñu baal ma ci kàddu gi man mi wax sax waaye day fen gis nga baat ngi ci baat yi ak ku mën a doon di nga wax a wax a wax ba baat boole leen baat booboo tax dootu la baal da koy téye ci xolam warul wax ni Ousmane day sama mag la waaye day fen kilifa kenn ko ne day fen xam nga lu mu waroon wax ndem moom déggin boobu la ci am dafa waroon wax ne Ousmane dangaa juum moo gën a ah ci moom ndax loolu dégganam la moom moom moo xam yaa ngi dégg waaye nit su fekkente ni yaa tagg altine mm-hmm. ah ki tagg altine téye moo juuf moom moo moo juuf ak a baax mm. moo juuf ak a tabe mm. moo juuf kenn moom projet moo juuf bi nga xëyaat suba ni moo juuf jarul dara mm-hmm. ah imaam Shafi nee na moo juuf bu mu la yéem ma jigéen bu mu la yéem waaye ki wax wax ji ne la yéem mm-hmm. man mënuma d'accord mu jël communication bi utiliser baatu sama mag la ba pare. xas sama mag. ba pare nga yëkkati kàddu gu ñaaw kàddu gi mooy baatu fen ñun ñoo ko tuutal Moodu fen koo respecté doo ko ko wax fen koo jox cër doo ko wax parce que fen ñun dañ koo tuutal te moo bokk na ci bàkkaar yi gën a ngand ci bàkkaar yi. nit doo ko wax loo xamante ni waroo ko ko wax wala du respect yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na unsur akaaka zaliman aw mazluma da doon ànd ak Sonko barki démb ak démb vidéo yaa ngi te li tax àdduna bi doy waar léegi baat bi mooy vaar dafa jege trop loo wax altine talaata lañ koy nettali maa ngi koy wax ci suba rek nee naa le 17 gii na ci ñëpp def ndànk ndax le lañ koy waxtaane le même jour dañ koy waxtaane dañ koy waxtaane ah, kon loolu la wan ni man yar gis nga adab dañ koy jàngale dafa am communication boo xam ne dafa am diggante mag ak rak dañ ko war a sàmm tey jii bu fekkente ni moom taahir li mu doon wax di mu àndoon ànd parce que lu mën a xew politique moom mel noonu ñi ngay départ ndool ñëpp du ñoom ngay arrivé ndool mais Moodu ABC ànd loolu ak Macky Sall bokkul ci bokkul ci quatre comme cinq personnes yi créé APR ah. mais bañ dem ba ci biir problème amul loolu dal na Ablaye Wade dala ko Idrissa Seck dala ko keneen ak mais politique politique la mm. la politique c'est yoo xamante ni mënul ñàkk ci biir politique su ko defee man conseil bi ma koy wax rek mooy mm-hmm. na politique na communiquer waaye bu ñu utiliser saaga xasante baaxul ci ay góor laa moo Modou ñu ñëwoon ci li nga xam moo di manque de relations internationales yi nga xam ne euh, Tahirou wax na ko nee na tey buñ xoolee mën nañ jàpp ne euh, suñu diggante ak euh, national maanaam nam waroon demee daal courant bu waroon demee wala lien ba ci amoon sax amatu ko tey ndax Sonko waaw affaire Tahirou bi de dama ci am ay question yu bari yoo xam ne mun naa ko soulever mm-hmm. man dama bëgg soo xam naa ne Tahirou du ci tontu mais dama bëggoon mu wax ma Ousmane Sonko lan parce que man déglu naa Ousmane Sonko meetingu géejuwaay bi man déglu naa tout le discours entier sa laa ko déglu bii la ko fenal loolu mooy sama problème la ko lan lan la ko fenal bam ne day fen non peut-être vaar yi muy wax parce que nee na moom ñaanu yàlla. la paase Ousmane Sonko dafa taxaw. mu ne moom patriote la du nationali patriote la mm-hmm. gëm. Mm-hmm. mu nekk ñaari courant. Mm-hmm. dafa mel ni rek ma ne man de góob ma oustaz nekk nekk libéral man man de góob socialisme ndax socialisme développé pour réew. Mhm. oustaz gën na ma moo moo day def maa fenal mais loolu nag la Sonko wax. Sonko dafa ne jeunes yi ñi leen gëmloo ne Sénégal Guinée ñoo tax mënuñoo liggéey loolu amul bay wax na dëgg Sonko loolu la wax. Mhm. xale yi bu ki leen bu ñu leen gëmloo waxul sax ki leen koy gëm dafa bu ñu leen gëmloo ne. boo leen amul liggéey guinéen yi ñoo tax non man du ma xam nga ma jigéen wax ak sa dafa ko moom mhm. man jàpp naa ne Sonko cible am xam na ko soxlul mu koy tudd pour nit ñi xam gis nga il communication piège la moo tax li ma sax da ko xaw a juñ mais da ko da ko fele su jàll Ousmane Sonko boo ko bëggee opposé wu faut nga ñor am xel tuuti xam nga keroog fi dama toog ma ne Oustaz euh, maa ngi fili remercier félicité posture bi Idrissa Seck am mhm. après xam naa lu tax moom posture bi waaw parce que xam nga fii penc boo xam ne waaw non du problème nit non dafa aw dafa xam moo tax jamono bi ñi xamul rek ngay dégg ñuy coow gis nga Macky Sall la xamam moo tax ñëwul bu xamul woon dina ñëw mais dafa xam moo tax mu toog foofu di jéem a xool lu muy arranger affaire yi ceci di ma ne Sonko li mu wax dafa ne xale yi soo ko dafa dajeeg njabootam di waxtaan ak ñoom mais Didi boo toogee sa njaboot xaa di leen ne moytu leen lii moytu leen lii moytu leen lii waaye yow bambi bi bu ñu gisee boppam ndax voi sa voisine la mais bambi kooku problème la yow am nga droit yedde sa njaboot dafa toog njaboot ne mu leen bu leen kenn gëmloo ne ñàkk liggéey gi ngeen ñàkk liggéey Guinée ñoo tax après mu ne moom gëmul nationalisme patriotisme la gëm waa léegi yaa xeeti waa ji lan lañ ko waxal ba mu génn pour dem léegi nag man dafa am lu ma ci jàngat mooy waaj ji dafa mer bu mu dencoon bu yàgg ndax xam nga waa yi nii avant Diomaye di gagné waa ji bokkoon na ñu doon toog ci plateau yi naan ministre sàngam laa bëgg buñ ma ko joxul duma jël leneen. waaw yéen a ngi fàttali non. moom mii la non. Mhm. yow togg bu ñuy togg ñoragut. déedéet nga ne buñ ma tibbalul ci bool bi ma duma lekk mais waa ji mooy kan dañ ma wax dëgg rek yéen tamit il s'est fait un nom waa ji grand chef gi la dëkk. ma xam man xaw ma ko moom personnellement. Ah damaa xam ñoo xam ne ay grand lañu. mu demoon fi France jàngi yàggu fa ñëwaat mais waa ji dama bëgg ñu wax moom mooy kan xam nga nag Sonko tey ku nekk mën ngaa ñëw saaga ko ku nekk mën ngaa ñëw saaga ko ndax Sonko moom boo ko saagaa yàllaa ko defal loolu Sonko boo ko bëggee di ci moom da ngay boo ko contré di wax ci moom mais dama bëgg mu wax moom nekkut ci trempe Sonko tolloowuñu bokkuñ sax école. moom bu nekk dafa nekk primaire kee ma ngay soutenir thèse am bokkuñ sax école xam nañ naan ñoo bokk école waaye bokkuñ classe mais dañoo bokkul sax école maanaam tolloowuñu dimension léegi nag man moom dama koy conseil mu dem ànd sàmm sa kaldu na dem mu bokk foofu waaw sàmm sa kaldu sàmm sa kaldu xam nga Sonko nee na xam ngeen kaldu non kaldu joolaa waaw Sonko noonu leen tuddee démb nee na coalition mooy sàmm sa kaldu hmm. moom dafa war a dem bokk foofu xam nga tax ndax man damaa yaakaar ne moom Barthélemy la gën a nuróol ni muy waxee que Ousmane Sonko bi mu nekk moom la jege. ndax de man de vraiment c'est malheureux que lii dal ko comme ni ko ma jigéen waxee commencé woon na xale yi dañ ko doon bàyyi xel ndax même bu nekkee d'accord ñu sax souvent ak moom ni muy waxee mais dañ ko doon bàyyi xel ndax jàppoon nañ ne am na moment boo xam ne taxaw na défendre cause patriote yi. voilà mais quand ni mu waxee démb la mu tabaxoon yëpp daf ko màbbal. yàq na lu bëri man pour man bi waxee. ne d'accordul ci nationalisme débat la c'est un débat France am na fa am na Amérique am na fep seen un débat moom moom na ñoo taxaw mu défendre le nationalisme bi mu gëm mais mu dénigrer sax le patriotisme amul problème parce que Sonko moom dafa am programme loolu la gëm mais programme bu ku nekk sax ñu ko critiquer mais bu nekkee ku critiquer programme bi mu ne la ngay fen mais kon moom jarul muy def politique te loolu kese la awax bi jarul muy gudd jarul muy gàtt Sonko patriote patriote la d'accord ci libéralisme ndax bu d'accord ci libéralisme dem ànd ak waa PDS. Mhm. d'accord d'accord ci socialisme bu d'accord ci socialisme dem ànd ak waa kii waa PS. Mhm. Sonko dafa ñëw fekk fi courant yu bari mu andi patriotisme mais moom la gëm. mais ñi ngi d'accord ak moom mais ñi ngi doxal seen i courant yi ñu gëm léegi nag courant sax dafa jafe am fi mu toll nii ci ci réew mi ndax léegi moom supp kànja moo am <laughs> ndax boo demee ci côté benn. di fa fekk socialiste yi fekk fa libéral yi fekk fa euh, euh, kii yi euh, nu mu tuddati ñoom kii gauche beeg droite ñoom Dansokho ak ñooñu seen parti les pays nu leen di wooyee sax trotskiste xaw ma ñoom ñëpp nga dajaloo foofu noonu amatul courant mais Sonko quand même patriotisme la andi léegi nag ci biir patriotisme bi dafa am patriote yoo xam ne dañoo gëm nationalisme mais am na droit alerte sa njabootam googu ne leen nationalisme baaxul et puis Sénégal mu mënu fi am. kenn du ko porté bi gañe fi dara xamul tax Sénégal moo nekk dëkk bu bindoo nu benn bindoo wut ci àdduna bi il suffit que nga voyager rek xam nga moom mi ngi wax waxi voyage moom France la dem peut-être dans le dans mais dem foofu am xam li xew ci biti gis nga Didi li am Sénégal amul fenn da ngay génn ci dëkk yu ñu gën a jege Sénégal socialisme bi fi am maanaam nit ñi yéen nañ te bi ñu am amul ci benn dëkk ça moom c'est vrai wax mais déggoo li ma waxuma tey jii tey jii su ma jëndoon añ balaa ma koy def damay naan nit di ñëw leen ñu añ mm-hmm. yow da ngay nit toog ne di commandé yow nga toog di commandé sa plat ñëw nga ne ko sëñ bi ñu añ waaw wala am yé eh, mais mais mooy lan benn benn benn xeet amul mm-hmm. benn xeet bu ñu war a beddi léegi nag moo lay moo tax ma ne Sénégal dafa bindoon lu kenn bindoo moo tax boo fi andi ay discours discours discours parce que nationalisme dafa war dafa xaw am racisme ndax tey ku ànd ak moom ci waaw non foofu sax àgguma foofu foofu ku ànd ak moom ci ku ànd ak moom ci ni muy waxee ci suñu mbokk guinéen yi kon yow Marine Le Pen war nga ko mën a soutenir ca na muy waxee biir France mhm. war a soutenir moromam ca na muy am par exemple Trump ca na muy waxee biir Amérique léegi nag d'accord naa man d'abord loolu d'accord naa ko loolu patriotisme la maanaam le Sénégal fës Sénégal d'abord balaa keneen te loolu la Sonko di woote léegi nag ñu ngi fi ñu ngi liggéey àla kulli àll man d'accord naa que Sénégal ñu identifier tous les étrangers comme ni ñuy identifier bu jëmee ci beneen dëkk d'accord naa ñu organiser leen am na yoo xam ne d'accord naa ko par exemple di jaay boutique di fa fanaan loolu maanaam hygiène la loolu war na yooyu réforme yooyu maanaam mbir war nañ cee liggéey ba améliorer condition de vie mais quand même Guinéen yi nekk fii ñu ngi liggéey di daan seen doole amuñ ñoog benn nit problème te Sénégal tey jii nii bi fi événement naar yi amee c'était en quatre-vingt-neuf xaw ma mais di nga gis Sénégal yoo xam ne ñoo doon làq ay naar seen biir kër ñoo doon tëj te loolu am am na am na réew yu ñu doon xew dañ leen di exterminer dañ leen di rey bañ jeex mais da ngay dugg man ñun dañoo dëkkoon ba boutique yëpp Kaolack naar yi ñoo ko yore mais bi événement bi amee waa koñ bi ñoo doon ñëw di sécuriser borom boutique bi te borom boutique bi naar la di leen rawalee guddi di leen génne pour ñu dem dellu Mauritanie waaw réew mu mel noonu di fi taxaw di fi mais mais noo gisee li nga xam ne wax na ko muy manque de relation internationale bi nga xam ne wax na ko nee na depuis boobu ba ñëw boo ko xoolee seetlu nañu mooy gis nga ah, gis nga day ay gis nga gis nga gis nga nañu xaar sax tubaab yi gën ñu asphyxier mm-hmm. nañu xaar loolu Sénégal nañu pare pour subir ndax li ñu bëgg boo ko bëggee am il faut nga xeex ndax tey tubaab bi dañuy jéem a asphyxier de xam nga tey jii lii nii da am na ñoo xam ne dañ koy xeex mais ni jëlee nguur moo jaaduwut da ngay ñëw nga jël nguur par coup d'état bëgg revendiquer yenn affaires yi bu ñu la asphyxier sa population dañoo ci ànd ndax ni nga jëlee nguur moo jaaduwut ñii dañ leen a élire démocratiquement ñu am ay jéng yu ñu bëgg a dagg nañu xaar tubaab yi di ñu mettre la pression pour asphyxier ñu léegi nag ñun xamul lu fu ñu fu ñu war a orienté suñu suñu vision mooy fan la ñu bëgg a dem ci àdduna bi ndax nit ki nga xam ne maanaam tey oustaz su ma su su su ma bëggoon génn bi sa taxaw ci bunt bi heure mu bëggee tijji mu puus oustaz dafa bëggul ma génn moo tax ñi ñuy ñi ñu bëgg a maintenir dans cette situation la dañoo bëggul ñu génn alors que ñun am nañ potentiel yoo xam ne mun nañ mel ñu comme ñoom feek ay ati at ndax ñoom ni ñun lañ meloon fexe ba génn léegi ñun loolu bu ñu ci kenn tënk gis nga relation internationale ce n'est rien ay ay théorie kese la les les les européens là du ñu dem ci réew mu ñu amul intérêt buñ fi ñëwee dañoo fi intérêt ñun intérêt bi bu ñu xamee naka la toll ñu intérêt boobu dañu war a valoriser ba ñoom bu ñu fi ñëwee ñu ñuy xool ci bët ñu leen di xool ci bët ñu mën di ko jël di ñu fi bàyyi ñun lu ñu xam ne mën nañ koo soxla ñun fii ci suñu biir réew ñu bañ ko def lu mel ni traite négrière nga xam ne suñu nee suñu maam yi dañ doon jaay suñu suñu suñu maam yi ndax ay seetoog ay butéelu sàngara di loo nga foog yenn na maanaam léegi yow ñooñu jël jël suñu maam yooyu noonu yóbbu leen tabax seeni réew léegi ñu ñu dem ba suñu jeunesse conscient Euh, bëgg a yeewu ñu ne la non non doo fi amee pourquoi. waaw au nom de quoi sax léegi nag li li wata woon mooy nguur gi fi ñu ne buñ ko teggi seen tànk mm-hmm. patriotisme souverainisme d'abord ñun d'abord souverainisme ci la ñuy amee autosuffisance alimentaire ci la ñuy moomee suñu bopp ci la ñuy dem a dem ba xalaat ne ñun ñi war nañu defar suñu oto bopp war nañu am suñuy marque bopp léegi c'est bien heureux maa ngi ne ay marque daal ñu ngi koy positionner et c'est bien bu ñu am complexe tubaab bi tubaab bi ay nit lañ te ñun ñoo leen gën a dëgër fuuf bu ñu am complexe bi nañ bàyyi ñun ñëpp bu ñu bàyyee sénégalais bu ñu serré la ceinture nekk suñu biir ñoom dinañ ñëwaat ndax li ñuy soxla dafa nekk fii ci biir réew mi voilà mais ay ay relations internationales gis nga sa gaalaa là moom dafa amul xam-xam xam nga nag am na mooy xam ne boo ko waxee kenn du la déglu mais waa ji bu ñu laajee ñi may waxal fii ci kër gi man mosuma gëm ne am na xam-xam waaw parce que ay réflexions yu limité la yore te dafa feeñ tey tey nag man li may fi may daanelee ma fi may daanee mooy fi may daanee mooy gis nga nag ay mbiru Sonko nag oustaz boo ci génnee yàlla rek du sotti ndax Sonko yàlla dimbale na ko ba yàlla di ko faxasal yenn yi balaa moo àgg fi mu jëm te genre gii nii tey bu leen dugaloon ci gouvernement am ah dinañ dinañ dinañ dinañ ko yàqal lu bari. ak ñeneen ñi nga xam ne tey ñu ngi fii nii xam ne beneen sujet bi dinañ ci ñëw. te àndoon ak moom di ko rogojeeru di di kii ñooñu bu àndoon ñoom ci biir nguur. kon musiba naar lay lay. d'accord voilà.